Ah, dañoo doy dañoo doy différence ça veut dire que ñàkk fayda mënul weesu nga am ku mel nit ñi yow ngay nekk fi di waaye di di dem di topp ji ay magu jàmm di ci rey sa bopp. Uh-huh. am na ku ñuy wax benn saay-saay bu ñuy wax Omar Sall wahabi la. <laughs> la. dégg ngeen jamono yi barki démb temps yële. gaa yi di ko rabbe. Uh-huh. wax ji mu wax ci uh-huh. Seydil Hadji وإنه إذ أراد الله دير وإنه إذ أراد الله أن أبان من نوره النبي العالمي بقلة نور أحاط به الأنوار حاجبة ليسال ها ليجي سأجدك ينتبى صلى الله عليه وسلم لير لنا كون لير غوغو ليتي لير سني برام أبان من نوره أبان بمعنى أمكن أو أوجد من نوره سبحانه وتعالى نور النبي العالمي بمعنى نور النبي المصطفى العالمي ولكن لولو كوكو يبت تاي فيم توني سا فدير كو لولو كو تاخاو تاي ني واو سي با نورمال ينتي بي صلى الله عليه وسلم ا بي ادم لا نكو بيندي نانغام اك نانغام واو ليو سا فدير كو لولو نياك خام لا ولا ييب سينغالاي لا ولا ييب ماك ني لا ولا لان لا دوي دوي دوي دال من خمنا غيسنا كو دال دوي دي مو خام والله ndax wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, gis nga man yow fi mu toll nii soo ma toggalee ceeb. Mhm. Euh, euh, sëriñ bi si léegi dugg ne ah Oustaz Mor Talla sa ceeb bi de jën bi moo tax mu neex. Mhm. ma ne ko déedéet sëriñ bi jën bi neex na de waaye ceeb bi li tax mu neex dëgg dëgg mooy xuluñe moo tax mu neex. Ah, waaw ñun ñaar ñëpp wax nañ dëgg pourtant. de toute façon ceeb bi neex na. waaw. ceebu Seydil Hadji malik nag da moom dafa neex moom. akay akay ak dëgg. ndax léegi nag fi mu toll yow da ngay am ceeb bu sab-sab ba pare ñu yàkkal la ko boo ci xéewaloo ba pare ci ngay xam ne Seydil Hadji malik liggéey na. wallahi kenn lu moom si Malick. daf moo may lu mu mayul kenn ñun Sénégal. moo tax nag il faut mu am ay jeunes yu mel ni yéen. il faut mu am ay jeunes yu mel ni yéen c'est-à-dire yéen mënu leen ñàkk am ci tarixa bi mhm. wax naa sànq ne euh, euh, yent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy bàyyi ba muy bàyyi mhm. ba muy ba mu ba mu ba muy génn àddina yent bi sallallahu alayhi wa sallam di bàyyi saxaaba yi pour ñu téye diine ji nga xam ne dañoo war a guerre pour l'islam gëna yaatu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam gëna yaatu d'accord ligéyam la won mais pour l'islam samp ligéyam la won mom sallallahu alayhi wa sallam ba l'islam sampoo ba al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al islam dinan bu ko yonent bi sallallahu alayhi bako yàlla subhanahu wa taala waxe mu jaar ci laam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam mat qad bayyana rushdu minal ghayy bi maanaam jub a ngi nii dëgg a ngi nii kon xalaas lislaam mat na xalaas intaalaam léegi nag mu des nag saxaaba yi war a continuer mission bi pour dem Cham pour dem Irak pour dem Ordon pour dem euh,